yaa xayra day jaa ngeen jëf mbokk yi téléspectateurs yi ñu ngi leen di nuyuwaat di rafetlu ànd bi ngeen di ànd a ñun di leen wax ne dal leen ak jàmm ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor gi ci bërëbu sell bi di Touba. xibaar yi tey jii dañ koy door rek fii ci résidence Khadim sol ni nga xam ne noonu la ko xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir di ànd ak bés bu yàlla sàkk ak waa daara Hizbut Tarqiyyah ak mboolem taalibe yi ci njàng mu am solo mi nga xam ne mi ngi fi am tey jii Serigne bi teewaat na ànd ceeg kuréel gi nga xam ne ñoo doon jàng tey jii muy kuréel 1 euh, bu Daara Touba. ñu jàng fi nak njàng mu am solo bokk na ci yaa xayra day fin atabil bishiri wal madadi nga xam ne bésu yàlla sàkk kuréel gu toog dana ko jàng waaye it ñu jàng fi euh, muxaddimatul am daa ci daaj bu am solo muy daaj waa kër Sëriñ Samba loole nekk loo xamante nii am na solo lool mbokk yi ñu ànd ak yéen ci lenn ci li nga xam ne mooy temps fort euh, xasida yooyu noonu laataa ñu wéyee li nga xam ne moo di xibaar yi wa mu nekkoon lenn ci li nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci résidence Khadim Rassoul ci njàng am solo bi nga xam ne bés bu yàlla sàkk xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké Bachir mi ngi koy teewee. ba léegi ci xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor gi fii ci Touba Mbacké bokk na ci ziar bi nga xam ne boulanger yi maanaam ñi nga xam ne dañuy liggéey ci mburu mi. amal nañ ko fii ci kanamu Serigne Mountakha Mbacké Bachir xalif général des Mourides mu jëm nag ci wàccaayu weeru koor gi ñoom nag ñu ñëw ànd ak Serigne bi fas yéene ànd moom li nga xam ne moo jëm ci weeru koor gi ba tax na ñu indil ko fi addiye lool bokk na ci ci addiye jooju ginnaaw koppar yi ay euh, pâtisserie yoo xam ne defar nañ ko muy ay kees yu bëree bëri yi nga xam ne moom ngeen di gis ci image yi ñoom nag ñu jébbal ko ki nga xam ne moo di xalif général moom koor gi waaye lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllum mburu ñu taxaw ci dëkk bu seel bi di Touba ba ñi nga xam ne ñoo di askan wi dañu ko mën a am ñu ànd teewlu ki nga xam ne moo seen président di président fédération des boulangers de Touba di sëriñ Amdi Lo ci kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko biñ génnee ci seen ziar bi fii ci résidence Khadim euh, bis bi de moom weesuwul ay dongo yu ñëwoon ci seenub sëriñ rek comme ni ko dongo yëpp baaxoo di defee ndax moom euh, lañ yëg ci suñu yaram mooy euh, ziar ni mu daan tëddee bu njëkk nga xam ne mag ñi dañ daan dox ay jéego yu sori ngir siyaara ji sëriñ bi kon bu ñu amee tawféexu dëkk ak sëriñ bi yore fi ay entreprise euh, bëgg dundal nag sunu passif ci biir loola nga xam ne nii euh, moom la ñuy euh, yëngu yaakaar naa ne war naa yomb te war naa yomb a expliquer. loolu moo tax nga xam ne bii mooy deuxième édition bi daaw defoon nañ ko niki daaw dikk fii ci kër sëñ bi defar ay pâtisserie comme ci mburu la ñuy yëngu te yaakaar naa ne li sëñ Abdoulaye waxoon war nañoo mën a dolli fit war nañoo mën a taxa a gën a dolli góorgóorlu ndax moom de waxoon na ne mburu moo xam ne ndoxum Touba lañ ko lakkee. lu mu mënta faj rek ci fu kooka la kon bu ñu amee tawféexu nekk ci dëkk bii di fi yëngu ci wàllu mburu euh, di ko euh, di ci jëflanteeg waa dëkk bi war nañ cee mën a gën a góor góorgóorlu ci biir loolu nag moo taxoon euh, regroupement de boulangers de ànd ak ay membres am yëpp defar ay pâtisserie indi ay tàndarma indi barkeelu xaalis comme ni ko ñëpp di defee dikk ba ci kanamu sëñ bi jébbalaat ko liggéey bi yeesluwaat ci moom kon liggéey bi liggéey la boo xam ne nii ñun yaxant dong indiwuñ ci dëkk bi ndax laata ñu fi yor ay boulangerie ay dongo lañ kon yaakaar naa ne bu bu liggéey sëñ bi taxawee dañuy fàtte sax na ay boulangerie lañ dañuy fàtte ne ay boulangerie sax lañ yor ndax kenn ku ci nekk ci ñun mën naa seere sa morom ci positif boobu positif boobu nag moo ñu dajale moo ñu tax fii ñu toll nii tembe regroupement des boulangers de Touba regroupement boo mën a tudd ci Sénégal rek ci suufam ngay nekk waaye mënoo koo tiim ndax loolu sëñ Mountakha moo ko waxoon Touba lu mu xëccool wat la bañ ko déggee ba léegi lañ noppee am jàmm bu ñuy ñëw kër sëñ bi sax duñ fi dikkee sago mu nekkoon kàddu yu am Lo mi nga xam ne moo jiite fédération des boulangers de Touba ci ziar bi ñu doon amal ci Serigne Mountakha Mbacké Bachir ba léegi ci xibaar yi ku ne weeru koor ne laylatul xadr ba tax na ñu koy waajal bu baax a baax ki nga xam ne nag moom moo di soxna may mënut Mbàkke daan ci taxaw taxawaay bu am solo loolee moom moo waral njabootam di waajal Laylatul Qadr mu fa yéene doon guddik ñaar fukki fan ak juróom ci weeru koor war a doon jeudi 30 mai 2019 fii ci Touba Mbacké ak mbooleem bërëb yi nga xam ne dafa nekk ci biir réew mi ak bitim réew waaye ki nga xam ne moom moo di euh, wala comité d'organisation bu màggal googu la wala guddik Laylatul Qadr gi nga xam ne Serigne Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo koy piloté amal nañ benn CRD ci njiitalu gouverneur bu région bu Diourbel ci diwaanub Njaareem ñu doon ñëwaat ci matuwaay yi nga xam ne moom lañ jël ci leelu xadri gi waaye nag yi nga xam ne moo di Serigne Cheikh Abdoulaye Mbacké Gaïndé Fatma ginnaaw ba mu rafetlee rafetloo disposition yi nga xam ne jël nañ ko ci leelu xadri gi moom nag ñëwaat na ci li nga xam ne moo jëm ci événement boobule di guddi gi nga xam ne moo gën junni weer ñu ànd teewlu ay kàddoom yi nga xam ne taataan nañ ko ci moom. guddi goo xam weer alxuraan ci boppam wax foo naa guddi ku toll noonu dem guddi melu ni soxna si tànnoon ko daa ci liggéeyal way juróom ba Serigne Touba daan ci wàcc ay kaamil yu bari daan ci def ay bernde daan ko ànd ak mboolem jullit yi def ko ay at yu baree baree bari ba woon ñu ginnaaw ren jii nag muy guddi koo xam ne bis boo xam ne mën nañ ne bi fi soxna si jóge ak léegi ban na ñaar fukki at wante itam mooy bi ñu njëkk def ginnaaw boo xam ne soxna Bali war nañu ginnaaw kon ci ñaar yooyu rek benn bu ci nekk tax na ba muy nekk bis boo xamante ne bii dafa war a wuute ak bis yi nga xam ne moo daan am moo tax mboolem disposition yoo xam ne war nañu koo jël ak administration bi ak maire bi ak taalibe yi ak famille bi ci boppam lu ci nekk lépp luñ ci daan def rek yokk nañ ko ba jàpp nañu ne buñ ci àggee bu soobee yàlla. niñ ko séentoo danañ ko am noo xam ne dina kawe suñu njort. waaw màggali moom continuité la rek ndax euh, mbir mu def ginnaaw doomi Serigne Touba fu naa du am dara loo xam ne ko ci yokkat kon lañ daan def rek lañ ci lañ ci def bu dee wàllu conférence yi aussi euh, moom itam am na conférence yu bari yoo xam ne danañ ko ci waajal euh, daana mat lu mat juróomi juróomi conférence benn bi panel la ci wàllu code la famille ci la ñuy waxtaan. ak yeneen conférence yoo xam ne bu ci nekk dafa am kilifa goo xam ne moom lañ ko moom lañ ko jagleel bi ci gën a rëy Cheikh moom leen baara bu Serigne Touba moom lañ ko tuddee muy bi nga xam ne danañ ko def buñ ne ginnaaw suba la am na ci boo xam ne dañ koy jagleel njabootu Serigne Touba bu bu jigéen gi am na ci boo xam ne dañ koy jagleel euh, Cheikh Issa Dieng ndax at mu nekk itam dañuy jël kenn ci mag ñi àndoon ak Serigne bi daan ko liggéeyal ñu jël ci benn bis euh, jagleel ko ko kon noonu lañ ko toppee ba mu ba mu jeex tàkk nga xam ne kon weeru ko wépp dañu ko fas yéene dundal ci ay jaamu yàlla ci ay bernde ak ci ay waxtaani diine yoo xamante ne bii maanaam mboolem julli ci Sénégal amul benn taraxe boo xamante ne bii bis bi di nga ko di nga ko wuute kon noonu noonu ko fas yéene defee di ci fàttalikuwaale itam li nga wax léegi sunu suñu wayjur mu di soxna Mamoussa mi nga xam ne ginnaaw soxna may moom itam liggéey na ci liggéey boo xam ne liggéey bu am solo la bis bi euh, soxna si moo ko ma ngi ko tàmbali woon ci Daaru Muxti màggal na ko lu mat euh, juróom fukki at ba mu ko tàmbalee aussi loolu foog naa wax nañ ko wax waxati ko ay yoon yu bëree bëri euh, ci ñaari ginaar dafa ko woon ñëw ci sëriñ Falilou mu dogul ko ci ne ko danga dem ba ci rey ay giléem giléem yooyu tey jii kenn xamut liñ ci rey ci ay giléem nu mu toll ñaari ginaar ya ku mel ne sëriñ Bassirou Sarr jaamu sëriñ Touba def na ko ñaari junni ginaar kon lépp loo xam ne sëriñ Fallou waxoon na ko rek teg na ci loxoom eh, eh, teg na ci bëtam kon liggéey la boo xam ne sëriñ Touba nangu na ko ko mu nekkoon kàddu yi sëriñ Abdou Lahad Mbacké Gaïndé nga xam ne yëkkati na ko ci CRD bu ñu doon amal ci daanu Diourbel mu jëm ci wàccaayuk laylatul xadr ginnaaw gàddaayuk yonent bi salallaahu alayhi wa sallam war a doon jeudi 30 euh, mai yooyu mooy tëj xibaar yi nga xam ne moom lañ jagleel weeru koor gi fii ci euh, diwaanu Touba di leen santaat di leen gërëm ci teewlu gi dig leen daje ëllëg incha allah ci yeneen xibaar yoo xam ne day bàyyeekoo ci bërëbu sell bi di Touba lépp rek jëm ci mbokki taalibe yi xamaat bu baax a baax li nga xam ne mooy bàyyeekoo fii ci Touba Mbacke ci diiru weer koor gi dig leen daje ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.